أقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزولي وتايدي ويسيل الردى من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو baax rek yéene leen ko moo waral ndaje mii nii yëpp ndax kenn ku nekk bu ñu fàttalikoo def nañ ay porte à porte si kër doon leeral lan mooy C50 club 50 pour cent de préférence nationale yàgg nañ cee def ay jéego di ci wax nit ñi di leen ci sensibiliser pour lii moo ko waral ngir ndaje mi ma gis na nag li ñuy dem comme ni ko suñu maam coon waxee di dem di ko samp feneen ci yeneen yeneen i quartier dama koy samp fi nga xam ne ni fi lañ bàyyi moo waral ñu dajale leen fi ndax dama ne bala ngaa bala ngaa laax jaay da ngay laax lekk ba pare moo tax nag lépp loo xamante nii dañ koy def ci quartier yi man damaa bëgg loolu suñu suñu suñu quartier bii nii jiitu si muy quartier Guy Mbind te Guy Mbind nag buñ ko waxee dafa yaatu xëy na sax am na ñoo xamante nii ne ñëwuñu ndax da message bi dafa da kii bi dañ leen dañ leen koy dañ leen koy xel mooy xaw a fatt ba àggul si ñoom pour pour ñoo bi waaye ñoom ñëpp sax buñ génnoon ak ñu yor mbootaay di ñu duñ xaj fii nii waaye ñii ñëw rek baax na ndax buñ bu ñu waxee li nga xam ne moom lañ leen moom lañ leen yéene da ngeen ko mën a jàllale. li waraloon nag suñuy tànk tey mooy club bi de 50 pour cent de préférence nationale nga xamante ne ay ndaw la yu regroupe yu def seen regroupement ngir jàppale ngir ngir ngir ngir ngir xeex li nga xamante ne mooy wàllum injustice bi am ci dëkk bi. loolu la woon nga xam te ne wàllum économique la woon nga xam ne depuis bañ commencé ba léegi def nañ ci lu tolloog 1500 ci ay recensement def nañ ko ci ci Touba gi nii ci loo xamante ni ci weer rek la te ba léegi nii am na yoo foo xamante ni sax duggaguñ fa kon nag li waral ñu njëkk fii tey dañoo bëgg ñi nga xamante ni mooy meere mbootaay yi si koñ bi ak ci ci ndax koñ bi guy mi gi yaatu na bépp koo xamante ne maam da yor meere mbootaay wala xale yi nga xamante ne maam suñuy morom lañ nga xam ne jàng nañ ba pare toog ñu ñëw ñu leen kaay ñu ànd ñu jàppale suñu candidat bi di président Abdoulaye la ndax nikk booy booy booy jàppale nii da ngay jàppale foo xamante ni sa njëriñ da caa nekk jàppalewuñu koo xamante ni dañuy ñëw diñu di ñuy dikk di leen te duñu ko jox bu fekkoon ne kuy diggaate la wala kuy naxaate duñ leen déplacé ndax xam nañ leen fi ngeen ñu toll te jox nañ leen cër te yàgg nañ leen a nax ci mel nii waaye nag kon ko fépp fu ñu dem dan naa ñu yàgg nañoo ndax yàgg nañoo ndax nax moo waral ñu dajalee ndax nit ki bala nga kaa wax dara day ñëw ba gisal boppam ndax man mi kenn mësumaa dégg ci wàllum politique waaye nag dama gis xam ne kii li muy woote ak ñee lañ daan woote du benn loolu moo tax ma dajale leen fi ngir ñu ànd jàppal ñu jàppale président Abdoulaye la ndax moom doomi Sénégal la doomi Touba la te lim jëf ci dëkk bu sell bi du Touba kenn ku nekk teg na ci bëtam ndax foo dugg di wax sax boo nee Ablaye Sylla rek da naan ah kooku de ay jëfam jiitu si na ko ci dëkk bi te la muy def feneen ci gox bi dë gox bi du Touba fi la fi la fi la fi la fi la fi la ko njëkke nga xam ne moom avant ñuy wax ci wàllum politique rek lim def Sénégal amut amut amut amut ab taalibe bu ko mas a def ci Touba lim def Touba kon kooku bu soxlaa réew mi jot na waa Touba ñun ñu mobiliser wu jàppale ko te yàlla rek tax loolu mooy sababu daje bi te bëgg nañ kenn ku nekk tamit ci maire mbootaay yi ñi nga xam ne am nañ ñu leen fi représenté ñu jox leen kàddu ñun nag maam nekkul ne dañ leen koy wax pour pour politique wala dara maam dañuy jàppalante rek te yàlla tax ndax bu ngeen ko defut it ab jàmbur mooy jugee feneen ci yeneen i dëkk ñëw Touba gii di ko fi sàkku see kon nag kii li muy sàkku si da ko fee fekk ndax Touba lépp lu waay bëgg fii la koy sàkku see kon am nañ yaakaar ne bu ñëwee fii nii bëgg fee samp benn cellule C50 nga xamante ni. day am représentant ci ci ci ci ci sel ci guy Minick yëpp nga xam ne képp koo xamante ne da nga am jafe-jafe ci lu mën a doon ci ci ci ci groupe bi ngay ñëw fi nga xamante ne mooy mooy mooy cellule C50 bi ci guy Minick fi ngay ñëw daal ci joytu soo sa say say say jafe-jafe su ko defee tamit ñu ñu xool lañ ci mën a saafara ndax loolu day baaxal leeral boo nee dañ fiy samp cellule boo xamante ni lu jafe-jafe bu waaye am boo ñëwee ñu ñu saafaraal la ko nga ñëw joytu ci saa jafe-jafe joo xamante ni mënuñu koo saafara nga génn ka daan na ñee la waxoon defuñu ko loolu duñ ci def kenn ku nekk muy ñi nga xam ne dañoo yor wàllum mbootaay gi Sëñ Saaliw dina ci dina ci dina ci agsi waaye bu ñëwee ba ba ba ba ba gën a xoot ci affaire yi dina am yeneen programme yoo xamante ne maanaam loolu lan loolu loolu mooy nekk seen diggante ak ñun muy yor wàllu mbootaay ndax ñoo xamante ni bu fekkee da ngeen dajale ay millions ci ay ay ay at ngeen dajaloo seddoo kenn ku ne dem jënd si dara du leen jariñ dara loolu amul sens nit ki nag maam li nga xam ne moom la bëgg faw mu préparer su boppam maam am ci formation nga xam ne buñ la joxee xaalis di nga xam yow naka nga koy financé ak naka ngay mën a denc di dencee say bénéfice waaye nit koo xamante ni yow li ngay dugg xamoo ci dara xaalis buñ la jox doo ko mat doo ko téye weer ak lu mu bare bare bare kon dafa baax nit ki bala moo dugg ci dara mu am ci xam-xam loolu nag moo waraloon ñu dajale ñu dajale leen fi. di ziar ñëpp ñi fi toog ñëpp ay maire mbootaay lañ ay femmes responsables lañ daanaka ci politique lañ yëngu waaye buñ sañoon lépp loolu xam ne da koy représenté balaa ngaa laax jaay nga laax lekk ndax instant yi guy midi gi lu mu fi bëgg wala garage daar lu mu fi bëgg moom moo fe moo moo moo ko fi bàyyi. ndax Ablaye Sylla mii day doomu dëkk bi di doomi docteur Sylla lépp lu bëgg ci guy midi. mu ne ko moo fi bàyyi lépp lu mu bëgg ci Touba moo fi bàyyi. lépp lu mënti doon nag nañ ko ànd ak moom mu ànd ak dal ak teey ak dignité doon responsable bu mag gëm lim doon su gëmee lim doon waa Touba ñoo koy fal mu jëm ca kaw ca kanam. di rafetlu jataay bi lool ndax man kenn mosuma gis ci waaye Dawda dafa nekk xale bu yaru doon xale bu teey doon xale bu jox mag ñi ci koñ bi cër ba tax ma lépp lu mu dugg loola dañ ko te jàppale. fas nañu yéene jàppale ko ci lii mu bëgg ba mu nekk président fas nañu ko yéene jàppale ci côté bu ne fas nañ yéene koo xam ne bokk nga ci sama mbootaay dinaa la sant nga def loolu li ci des nag mooy ñu ñaan yàlla jàppale ñu li ñoo dimbale kën ñoo jëmale li ñu mébat ci kanam daw da lu mu nekk dañ ciy sawar docteur Sylla ñun ñëpp xam nañ ko ku ne defal na la lu baax ku nekk si guy mbind gi am na fu mu la jàppale yaa xam yaram yaa xam sa lenn moom su waxoon présenté wu dañ ko war a jàppale waxuma laa doomam kon bu ci daw da loxoom tey sas ci ñun di sunu doom di sunu sët li mu bëgg dana fas nañ ko ci yéene jàppale fas naa yéene képp ku may waxal ku ne fas naa yéene lii mu bëgg danañ ci taxaw teem yal nañu yàlla jàppale képp ku am sa carte daal te yéene ko te bëgg ci lu baax defal ko Ablaye Sylla ndax mi ngi def lu baax ci dëkk bi xañ joxe moom dajutum réew ku ne moom bu jaar nit jaaree fi ndax nit jaar na fa def waaye moom li mu def ñëpp teg na ci seen bët ñëpp teg na ci seen bët. yéex a ñëw gi nag lépp li ko waral mooy euh, dafa am ay quartiers yu baree baree bari yu nekk tuuba yoo xam ne dañ fay samp ay cellules yoo xam ne moo fay teewal kii di kër gi di C50 PN. ñoo ngi départoon di h di h fekk nañ départ mais nag xam nga cellules yi ñu war a samp moo bari. kon tey avant ñuy ñëw ci Daouda Ndiaye sax waroon na ñoo wàcc mais Daouda Ndiaye dañoo gis liggéey bi nga xam ne boobu ba tey mi ngi koy liggéey liggéey bu rafet rafet rafet la amel waa C50PN ñëpp xam nañ ak jàmbaarteem gi mu ci gis nañ ne bañ commencé ba tey moo jeunes yi nga xam ne ñoo dëkk Touba Corniche Daara Jolof yi dëkk Kéré Mbay yi dëkk yi dëkk loyen gis nañ liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy amal liñ samp ci ay cellule ci Touba kenn mënu ko wax te cellule bu ne lu mu dee dee boo duggee ci groupe whatsapp bi da nga fekk plus de cent personnes kon ay jàmbaar lañ ay Daouda Ndiaye ak jeunes yi ñu àndal ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ kon donc nag mënuñoo bañ a ñàkk ñëw fii parce que Daouda boo ko waxee lan la lay wax guy mbind laa am guy mbind moom laa tiitaroo kon lañuy def feneen dinaa fexe bañ def ko guy mbind képp ku responsable jeune bu responsable loolu lay def kon ñoo ngi rafetlu liggéeyam gis nañ ko depuis bi ñu ko joxee keroog man maa doon séddale flyers yi mais jox nañ ko plus de cent flyers fexe na ba parcourir quartier bépp yaakaar naa information bi ñëpp jot nañ ci kon liggéeyam rafet na ñi muy àndal muy ñoom xaadim nee na moom dafa mënut a wax ci caméra am na message bu ma wax pour ma jàlle ko nee na ñoom li ñu leen joxoon lépp ci ay flyers ak liggéey bi ñu leen defloo guy mbind yëpp jàlle nañ ko ànd kook seen seen ki nga xam ne moo jiite cellule bi muy Daouda Ndiaye nee na nag moom la lay ñaan sëñ xaadim waa C50 PN ñu jàppale Guy Mbind parce que ñoom Guy Mbind la ñu am loolu nag yaakaar naa ne Baye Sall dina fexe ba remonter message bi ba mu jàll ci docteur euh, ci ci ci Ablaye Sylla lim ci man dina ko def incha allah di leen wax que ne C50PN tëjalul kenn du buntu yi yéen xale yi nga xam ne da ngeen a bëgg liggéey wala ngeen bëgg a def recense recensement yi bu ngeen ñëwee approché Daouda dinañ leen jël ngeen continuer liggéey bi parce que même pas un mois man flyers yi man maa ko defaroon plus plus de 500 nangam flyers la man maa ko defar mais booy distribuer nañ ko ba mu jeex samp nañ ay cellules dem nañ ci mbootaay yi nekk Touba dem nañ ci association yi fépp fu message bi waroon na dem booy jàlle nañ ko fi kon xale yii nga xam ne ñoo nekk seen i quartier bu leen jàppe ay tuut tànk kese nañ leen jàppe ñu responsable liggéey bi ñu def gis nañ ko daaw Daouda Ndiaye jiite ko wax dëgg yàlla am yéen ñëpp li muy nekk xale ngeen nekk suñu yaay ngeen nekk suñu maam ngeen nekk si topp leen si bu ngeen toppee ci ginnaawam di ngeen waaw ngeen jàppale ko bu baax a baax nit nag bu defee bu jëlee yenn tànk yi nekk xale bu ndaw jël yenn tànk yi muy tànk bi liggéey te liggéey mooy patriotisme te ñun ay patriote lañ ci lépp kon kooku yéen ñi nga xam ne yéen ay ay yaayam yéen ay magam yéen ko war a poussé jàppale leen ko bu baax a baax a baax ñoo leen di sant di leen gërëm aousubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim na wali yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul di ñaanal seen Cheikh Mountakhal Bachir yan bi oyof ci kawam ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal ci yoonu murit rawatina ci lislaam yàlla saa borom jàppandal ko ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di jéggalu toogaay bi toogaay bi yàgg na lool amaana dafa am ci yeneen yeneen i mbir yu njëkkoon a nekk muy sama xarit yi nii wax nañ ko léegi muy wàllum ay cellules yu ñu doon taxawal ci liggéey bu am solo bi daaw da Ndiaye di def xale la mais jàmbaar la wax dëgg yàlla bi biñ tàmbalee liggéey bi ba léegi mi ngi ciy def ay jéego yu am solo yu am solo parce que à l'intervalle de un mois recensé na plus de 1500 personnes loolu du ay caaxaan moom ak équipe yu bari ñu nekk sur le terrain di liggéey di amal liggéey liggéey bu am solo fii ma ñëw tey nag fii dafa nekk euh, fu particulier ci man fii sama kër la amaana samay mbokk lañ ñii ndaxte wax dëgg yàlla suñu yaay faatu dégg nañ kàddu gi mu wax kàddu gu am solo ñii nag moom sama sama lépp lañ ndaxte sama wayjur wu jigéen ci biir kër gi la nekk ba tax na daal muy contexte bu particulier moo fi indi ba tax na maa ngi leen di jaajëfal di leen masawu coono ndax lii ñu leen teg lu lu metti la ndax xar kanamu dëkk bi ni mu ni mu dëppoo ndax dañoo war di wuyu ci war may dëkk bi moo tax ñu am benn taxawaay ci suñu doxalin ba tax na daal loolu daal ñu ngi leen ciy ñaax parce que dëkk bi moom da di dëkk bu sell kilifa gi tamit bëgg ñuy dëppook li muy santaane moo tax sax ñuy am yenn taxawaay yi ba tax na li ñu fendi woon muy jàllale message jàllale message u association patronat bii nga xam ne nii moom la président Abdoulaye Sylla créé muy club c' cinquante pour cent de préférence nationale balaa ñuy wax ci club ji nag dangeen ngeen may may tuuti ma wax leen ci kan mooy Abdoulaye Sylla parce que am na ñu nekk fii xamuñu ko dañuy dégg ak jëfam rek mooy li ñuy faral di wax fa fu ñu dem rek jëfam mooy moo fay jiitu aw turam Abdoulaye Sylla doomu Sénégal la particulièrement doomu Touba la way juram nekk fii ci dëkk bi mu juddoo ci dëkk bi defee lu baree bari bari ci dëkk bi ba tax na yu ci baree bari ñi ngi koy dégg mu koy def mais loolu devoiram la ndax boo juddoo ci dëkk amaana balaa ngaa def lenn ci sa àdduna yàlla suñu borom wërsëgalee la war ngaa gestu dëkk ba ba tax na ci tànk yooyu la nekk moo tax yu ci baree bari misaal yu bari ñu koy jël ne def na ko ci dëkk bi loolu wareefam la lu ci mel ne barabu sëñ Sidi moxtaar bi ak barabu sëñ Fallou yeesalaat yi mu koy yeesal ak wàllum social li mu ciy def ci dëkk bi amaana fépp foo def balaa ngay expliquer rek dañ lay wax ay mbiram marché Ocass bi ñu fa demee di waxtaan ak délégué marché bi ndax boo nekkee ñëwee ci ci ab mbir da ngay jaar ci buntu ba muy délégué marché bi mu jiite marché bi yëpp ñuy waxtaan ak moom mu ne ñu ah sëñ bi yow de bul àggale ndaxte Ablaye de 2019 def na fi jëf joo xam ne nii. ju am solo la ndaxte marché bi da doon taa waa marché fraude bi mais lépp luy assainissement da ko reprendre defar ko liggéey ko liggéey bu mucc ay ba nga xam ne nii nawet bi bu ñëwee ndox mi dina mën a jàll ci nam war a jàlle ak leneen mu taf mu taftal ci leneen ne ma oto mbalit bii nga gis nga muy ramasser lépp luy mbalit ci biir marché bi moo ñu jox xaalis bu takkoo takkoo takku ñu jënd ko loolu mu bokk ci social bi bi muy def ci biir dëkk bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen doo xam ne nii du bëgg nit ñi xam ko ba koy wax moom du bëgg sax di def nit ñi di ko wax moo tax lépp lu muy def rek sutura la ci jiital muy ay qualité yoo xam ne nii man day moom lay jàppee doomu aadama ba tax na ay mbiram daal moom mooy saa naf yi bi laa darar maanaam ay mbiram ay njariñ kese la ba tax na ci loolu dynamique boobu la nekk pendant de années ñu ci baree bari li tax xamuñu ko mooy li ma leen doon wax léegi sutura gi muy jiital ci ay mbiram ndaxte adduna bi ku gis ni mu tëngoo Sénégal ku gis ni mu tëngoo maanaam man mii ci misaal damay jël misaal ci sama bopp bu ma maye woon 10 000 sax dinaa ko médiatiser fépp réseaux sociaux yëpp dinañ yëg ne def naa nangam wala def naa nangam ak def naa nangam yooyu mu bokk ci ay qualité yoo xam ne nii moom la ñuy nawee doomu aadama wala boog man moom laay nawee doomu aadama maanaam def ci sutura loolu dafa bokk ci ay mbiram ba tax na œuvre sociale yi muy def yamul ci tuubaa kese ku ne xam na ni insuffisance rénale dafa dafa sonal jigéen ñi mu ngi ciy defar benn centre hémodialyse bu rëy boo xam ne nii mi ngi dakaar maanaam centre bi na pare fii ak ay weer yu néew dinañ ko inauguré bu paree mooy centre hémodialyse bi nga xam ne nii mooy gën a rëy ci Afrique de l'Ouest dina abriter 1300 lits loolu yëpp ci loo xam ne ni social la loolu amaana am na ñoo xam ne bu ñu ko defoon daj na waxuma la Sénégal de mais daj na àdduna loolu yëpp pour firndeel leen ni muy jëfee ci suutura li may wax nag saa yu may wax damay bëgg di ko di indi ay firna centre hémodialyse bi képp ku bëgg a vérifier na nga ñëw ba zone de captage Dakar nga laajte fan la centre hémodialyse nekk dinañ la ko wan mooy centre bi nga xam ne ni mooy gën a rëy ci Afrique de l'Ouest loolu ku koy def ci social ci loo xam ne nii dërëmu kenn demu ci demu ci moom moo koy def ngir ndimbalul askanu senegal ak yërmande gi mu am ci askan wi kooku mooy Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla nag moo créé Ecotra Ecotra boo leen déggee Ecotra firnde bi ngeen koy xamee mooy màggalu Touba depuis 2016 mooy camion yi ñuy gis ñu fiy ñëw di jàppale nit ñi ci assainissement wu dëkk bi chaque màggal trois semaines bu teroo ci màggal gi day indi camion yi day déplacer flotte bi yëpp ñu ñëw jëbbal ko xalif général des Mourides mu jox ko xalif général des Baye Fall mu ànd ak Baye Fall yi mooy camion yi ngay gis Baye Fall yi di ci dugg di ànd ak ñoom ci assainissement dëkk bi camion yooyu yëpp ci mbaaxu yàlla suñu borom moo ko moom mi ngi koy def 2016 ba léegi ku ne xam ne yàgg na mën na juróom juróom juróom juróom-ñeenti at loolu xam nga ni du ndaw ku ne xam na ni ñi nga xam ne xam nañ BTP ku ne xam na ni booy déplacer ay matériel moyens yi mu laaj day laaj ay moyens financiers maanaam koppar bu bu takku 2016 ba léegi ci njàppandu yàlla suñu borom nga koy def loolu yëpp ci social mu koy def ci yërmande yàlla suñu borom ak bëgg askanam bëgg yoon wi loo kooku mooy Ablaye Sylla Ablaye Sylla nag li tax mu créer association patronat bi dafa particulier mooy jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la ñuy dund ci secteur bi ñu nekk ñun secteur BTP lañ nekk maanaam lépp luy tabax tali ak édifice public bâtiment ak yu demee noonu yu cay dem ci loolu lañ nekk Ecotra nag moom lañ gën a xam ci entreprise yi ñu yor wante groupe d'entreprise la yor li mu yor ci entreprise ëpp nag 16 entreprise entreprise bu ci nekk da ngay yëngatu ci ay yëngu-yëngu yu bokkul ak sa moroom yii ñu ngi ci wàllum dépannage mécanique ay mec di def ay euh, maanaam li leen di wax mécanicien yeneen yi mi ngi ci wàllum jaay gasoil ak essence yeneen yi mi ngi ci wàllum énergie maanaam transformation de l'énergie leneen li mi ngi ci wàllum hélicoptère ainsi de suite ainsi de suite maanaam 16 entreprise moo polarisé groupe Ecotra ba tax na bi ñuy xayma Ecotra bi ñu ko créer ak léegi li fa nekk ci ay doomu réew mi di liggéey toll nañ ci 2000 personnes en terme d'investissement bi ñuy saytu ci flotte bi lim ci investir mën na 100 milliards kon loolu du ay caaxaan loolu nag ñu créé biñ koy créé depuis biñ koy créé ba léegi dafa traversé ak ay jafe-jafe yu metti moo tax ñu moo waral sax mu créé association patronat bi tuddee ko club C 50 pour cent de préférence nationale ñun nag moom lay faral di wax chaque jour ñun duñ ay politiciens ñun ay entrepreneur lañ entrepreneur mooy képp koo xam ne nii day dundee ñaqam yéen ñii ñëpp ay entrepreneur ngeen parce que ku nekk yaa ngi ci te secteur privé lañ nekk nekkuñ ci daray banqaasu nguur lu ñu bokk lépp lu ñuy def ñun ñoo koy defal suñu bopp ba tax na ñun ñëpp ci ci loo boobu lañ nekk ci secteur boobu nag dañoo am ay jafe-jafe depuis bi ñu ko créé ak léegi wàll wàllum marché yi nga xam ne nii moom la ñuy jagleel entreprise yi nekk ci dëkk bi dañoo def benn taxaw seetlu bu doy waar mu doon injustice bu doy waar dañuy jël marché yi di ko jagleel doomu étranger yi ñi nga xam ne ni entreprise yi nga xam ne nii bawoo ko wuñ ci réew mi maanaam entreprise yi nga xam ne nii doomu réew mi moomuñu leen ñoom lañuy jël di leen jagleel marché yi mu commencé indi ay injustice ak concurrence déloyale bu doy waar loolu moo waral association patronat bi juddu ñu tuddee ko club c'est 50 pour cent de préférence nationale 50 pour cent yi nag moo local content maanaam mooy maanaam comme que ñoom li bi tënkoo dañ ne woon marché bu bu ñu gagné biir Sénégal comme que 30 pour cent yi dañ ko war a jagleel entreprise nationale yi comme que 30 pour cent yooyu mënuñu ko jagleel entreprise nationale yi ngallaawaay léegi. bëggatuñ trent pour cent yi day indi jafe-jafe comme que jagle ba sax da ci indi ay jafe-jafe léegi 50 pour cent nañ koy xaajoog tubaab yi ndaxte xel nanguwul ay doomu sénégalais investir liñ fi investir jël ay sénégalais ñuy liggéey ku ci nekk ngay gañe sa wërsëg di ci dundale sa famille ak ñëpp ñu ca xaj loolu jaamu yàlla gënu koo kawe amaana bu ñu amoon fukki si la wala vingt Ablaye la gone yi duñ jël gaal gi di dem ay Europe duñ fi gis ay jafe-jafe yu baree baree baree bari ñu baree bare dinañ liggéey ñun nag ci politique d'emploi boobu lañ nekk ci lañ nekk pendant un an di sillonner Sénégal fépp fuñ fi dem créer fa li ñuy wax kër c cinquante kër c cinquante googu di répondre ci besoin population bañ fa fekk maanaam bu ñëwee fu mel ne Touba Guy Mbind créer fi kër c cinquante am fi représentant c cinquante parce que lii ñuy nekk dafa nekk lu sérieux loo xam ne dañ ko ànd ak ay nit ñu xarala fépp fu ñu fi dem dañuy créer kër c cinquante mu am représentant C50 am ci biir école C50 ku ci nekk xam na ni sànq bi ngeen di wax seen doléance yéen suñu yaay yi da ngeen am ay projet yoo xam ne ni bëgg ngeen ku leen ci accompagner am ngeen ay yëngu-yëngu jamono yoo xam ne ni bëgg ngeen koo def mais koom-koom ba moo fa du ne yooyu club bi da ciy indi ay solution yu am solo. maanaam boo ñëwee adhéré ci biir club bi ñëw dafa am école c cinquante école bi dañoo am ay nit ñu xarala ñu lay tàggat dans lay métiers yéen suñu yaay yi nga xam da ngeen di yëngu ci wàllum transformation ak beneen xeetu yëngu-yëngu dañ la ciy tàggat ba nga mucc ayib jàngal la parce que nit ki tamit ki ngay may jën jàngal ko ni ñuy nappee moo ëpp solo ñun nag ci loolu lañ ne dañ lay jàngal ba nga tatagal la. ba nga mën li ngay def booy dem day am ay mécanisme de financement yoo xam ne nii dañ koy teg en place yoo xam ne nii day répondre ci banque yi ni ñuy exploité parce que ku ci nekk yenn saa yi da ngay dem ci banque bi di def prêt ñu ne la dañ lay lebal mille waaye un million ngay fay muy ay mbir yu doy yoo xam ne tegawul fenn ay taux yoo xam ne dañ koy appliquer ci population bi boo xam ne mënuñ ko justifier ci fenn te en plus li ci gën a doy du ñu lebal koo xam ne ni amul ay koom ñi ñuy préféré lebal mooy ñi nga xam ne dañoo am xaalis les milliardaires ak millionnaires yi muy ay jafe-jafe yoo xam ne ni club bi da ko da ciy indi ay saafara yu am solo dañ lay jàngal ba nga mokkal ca li nga bëgg a yëngu booy dem ñu tegal mécanisme de financement yoo xam ne ni dañ la ciy jàppandalal bu ko defee financement yooyu ñu lay jox du am benn intérêt bu koy bu koy régir maanaam boo lebee cent 500000 ngay fay ba pare. li ci gën a amaati solo amul dañ lay fixeel ab délai boo war a fay maanaam le 5 sax le 5 da ngaa war a fay da ngay fayee ca nam la gën a jàppandalale muy ay solution yu am solo yoo xam ne nii apporté nañ ko ci biir club bi yooyu nag biñ ko tàmbalee di def ba léegi ñi nga xam ne nii ñoo tënk mbir mi club bi muy ay entrepreneur yu am daraja ci réew mi ñu ne échéance électorale yii di ñëw yii di ñëw dañ cee bëgg am mbër ndaxte nag ñoom tamit mënuñu seen li leen yàlla may ñu ne dañ koo bëgg a bokk ak sénégalais yi investir fi liñ ci investir ba pare maanaam état bi mayu leen possibilité di leen di leen di leen di leen dugal ay ndëgg sërëx noonu lañ ko mën a tuddee lépp luy marché bu soqoo ko ci réew mi ñu jël ko di ko jox ay étranger ñoom tamit dañuy protéger seen bopp ne dañoo bëgg a wane seen bopp ci échéance yii di ñëw ba tax na moo tax ñu ne dañoo jiital président Abdoulaye Sylla comme seen mbër ci échéance yi di ñëw muy présidentielle yii ñu jëm nii loolu moo waral candidature Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla nag bu ñu ko tabbee mu ne man fa ma baawoo ko lay tàmbalee lépp lu may tàmbali fi muy Touba nga xam ne fii la am léppam fii la ko defee mu ne ma demal ci population Touba nga waxtaanal ma ak ñoom lépp luy njàppandal ci seeni activité bu soobee yàlla lépp lu ma ci mën a dugal sama loxo dinaa ci dugal sama loxo ndax kat balaa ngay laax jaay nga laax lekk lépp lu mu am fii la te lépp lu mu am tamit mi ngi koy delloo si fii ndax ndaxte ñun li ñu gën a soxal mooy suñuy sëriñ suñ sëriñ yii kat ku leen fonk ñun dañoo amoon valeur yooyu mooy sëriñ yi ku leen ku ñu leen jàppal suñ sëriñ yii nga xam ne moom ñoom lañ yaakaar tey ëllëg képp ku ñu leen jàppal dañ lay fonk moom de wax dëgg yàlla jëf jooju ma moo tax ba ma demee sëñ Abdou Karim di ko waxtaan ak moom mbir mi mu ne ma Ablaye de lépp lu mu bëgg Touba dana ko war a yomb ndaxte nee na ma jote day jiitu joote baatu olof boobu la ma wax maanaam avant moo soxla dara ci réew mi ma nga doon jëflanteeg nit ñi lu baax kooku nag lépp lu mu bëgg ci réew mi amaana mën na ko yomb ba tax na ci tànk yooyu ci ndigal loolu mu ñu mu ñu jox ne ma fépp demal ci ci ruq-ruqaat yëpp sëñ Abdou Karim Mbacke Fallilou ne ma demal ci ruq yëpp wax ak nit ñi ba ma joxee ndigal li ba léegi teggiwu ci sama tànk fépp ruq-ruqaat yi ci tuubaa yëpp maa ngi ciy dem di waxtaan ak nit ñi di leen wax kan mooy Ablaye Sylla lan mooy club C50 pour cent de préférence nationale muy suñu doomu réew di suñu doomu dëkk te nag Touba ku ne gis na xar kanam gi ni mel assainissement bi sonal na nit ñi kër yi amuñu ndox ñu lay wax ne la Touba am na plus de 60 forages loolu yanuwul maanaa ba tax na yéen ñi nga xam ne yéenay samay yaay. ñii di samay rakk ñii di samay mag maa ngi leen di ñaaxaat échéance électorale yi ñu jëm élection yi ñu jëm bu yeboo ñu am ci taxawaay bu am solo ndaxte buñ ko ci amul waat politiciens yi ñëw naxatiñu ba jël réew mi wallahi azim dinañ dundaat lu metti parce que gis nga tuubaa gii ku fi dëkk moo ko mën a moo ko mën moo ko mën a jagal ku fi dëkkul mënu ko mën mënu koo jagal de xamuñ li ñuy dund fii nii nii nii mën ngeen maa seede am na ci kër yoo xam ne nii boobu ba léegi amul ndox robinet yi ubbiwul ñu ne ñu am na ay plus de 60 forage assainissement bi ku nekk gis na xar kanamu dëkk bi ndox mi mi ngi nangu kër jàmbur yi mais loolu sëñ bi dañ cee war a jóg te ñun dañ ci am saafara yu am solo mais safara yooyu pour ñu gën koo taxawal gën a ñoŋal parce que reprendre assainissement Touba dafa laaj ay xaalis bu dul jeex ay milliards la. te foog ñu reprendre ko loolu nag pour nga def ko foog nga am appareil de letat mun koo def parce que boo dewee benn privé bëgg koo def ñoom mën nañoo ñëw dugalal la ay dëgg sërëx ba tax na ñun nag suñu destin ñoo ko téye nii en mais échéance électorale yi ñu jëm bu yeboo ñu wane ci suñu bopp képp nag bépp doomu aadama boo xam ne nii mu ngi yeewoo Touba ak fa nga mën a far na nga xool bu baax la ngay def ndax lépp loo def mën na la rattraper ku nekk gis na suñu xaar kanamu dëkk bi dañ koy jël di ko tolloole ak yeneen dëkk yeneen ville religieuse bokkuñu ak ñoom Touba boo nee dakaar Touba nga ciy teg kon nag lay ñuy jagleel dakaar ci ay milliards war nañ koo mën a jagleel Touba ci ay milliards mais boo ko bëggee jël di ko tolloolee ak yeneen ville religieuse yi ci Sénégal day indi jafe-jafe ba tax na ñun waa Touba ñun ñi nga xam ne ñooy yeewoo tuubaa échéance électorale yii foog ñu am ci mbër mbër mi ñun ñëpp ñu ànd ak moom ndaxte buñ ko deful ba nit ñi naxaat ñu ba jëlaat réew mi wallaahi dinañ amaat ay jafe-jafe ba tax na daal loolu moo tax ma ne woon dinaa ñëw waxtaan ak yéen baaxee leen possibilité yi ngeen mën a am ci club cinquante bi ba tax na daaw Daouda mii di suñu rakk suñu rakk ju doon jàmbaar bi mu nee dey créer cellule fii hésité wu benn yoon ma ne ko ñëwal nga créer cellule lépp lu ñuy bénéficier wu ci club c'est 50 pour cent de préférence nationale yéen ngeen jiitu ci parce que ñi ngi jëm ci ay yëngu-yëngu lépp lu ci war danañ ko teg def ko mettre ko à votre disposition jébbal leen ko ngeen wëyal liggéey bi ci gox-goxaat yi nekk ci Touba yépp ñu am ci taxawaay bu am solo liggéey ko ànd ñun ñépp yàlla saa borom defal ñu ci tawfeex ju kayo suñ jor asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf